jaa ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi suivre seen site internet murid point info comme ni leen ko yàgg di waxee nag ba léegi yéen a ngi seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou tey nag maa ngi doxantu ba fii ci marché Ocass fekk si fi ki nga xamante ni si mooy di euh, Adama Dieng nekk responsable bu mag APR fii ci Touba Mbacké waaye di tey mouvement Macky moo ñu doy balaa ñuy xuusa ci waxtaan bi rek ñu bàyyi ko mu présenté wu ak mbokk téléspectateurs yi koy seetaan Adama. salaamaaleykum. ansubillah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah rabbi sarax li sa sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani xaw qawli maaleykum salaam nday jaam ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu seen site bu mag bi macha allah seen murit info euh, di euh, nuyu baax baax a baax ñi nga xamante ne ñooy faral di topp waxtaan bi ci bitim réew ak fu ñu mën a nekk. Euh, di ñaan yàlla suñu kàddu fekk ñëpp ci jàmm am mbégte contentement bu rëy ngir dalal la pour ñu mën a waxtaanee lu bëree bëri ci actualité nationale ou internationale ak loo xamante ni dafay concerné au niveau département de Mbacké. merci beaucoup Adama Dieng ci boobu am na solo torop ah, ñi ngi ci weeru koor nag Ramadan Mubarak la ñu wax tey nag gis nañ berne yi nga xamante ni si defal nga ko ñi nga xamante ni si ñoom nga sekkal làng gi nga xamante ci ngay yëngu ah, Adama en tant que responsable naka ngay dundee koor gi. yëf ndey am na solo koor gi moom. ni ñu ko ñëpp daanaka mën nañu wax ni ni ko ñëpp dundee rek lañ koy dundee tey nag boo gisee ñu bi ñu uh, active bi ñu uh, waajal invitation bi ñu invité ñi nga xamante ni ñooy langue politique yi ñu ne ci opposition bi ñu ne pouvoir yëpp dañuy joxe exemple toujours wane ni politique ñun nekkuñu ay noon xay na dañoo bokkul fu ñu féete rek waaye ñoo bokk benn initiative muy luy doxal dëkk bi kon jàpp na waruñoo mën a nekk ay noon moo tax ñu invité leen ñoom ñëpp ñu ñëw toggandoo ndogandoo ensemble pour wane nee tamit ñun ay doom yi dëkk bi lañu te ñun nii ñëpp kenn ku nekk ëllëg kenn xamul kan nay doon kenn xamul kenn xamul Adama Dieng mooy yori dëkk bi ëllëg kenn xamul Adama Dieng mooy nekk président kenn xamul kan mooy nekk dara kon lépp solo mooy li ñu nekk rek ñu di ko rafetal toujours moo tax ma invité leen mais vraiment daal euh, kor gi dugg nañ ci bismillah rahmaan rahim ñu ngi ñaan yàlla génn ceeg alhamdulilahi rabi alamin ci lu rafet li nga xamante ni si def nga ko tey jii invité ñi nga xamante ni si ñooñu ñi nga xamante si ñoom nga sekkal langue yi nga xam ne ci nga yëngu ah, muy opposant muy pouvoir bàyyi woo kenn tey macha allah gis nañ benn yu baax yi nga xamante ni si def nga ko ah du loolu la ñuy xuusee leen fàttali ba léegi yéen a ngi seen biir émission koor gi ak ah, ma toog sama invité te ma ci li nga xamante ni si moom lay yëngu aadama lan moo la dugal ci politique jërëjëf la nga ma question bu am solo muy li ma dugal ci politique Adama Dieng de benn donga la rek boo xamante ni en 2008 euh, ci laa dugg ci politique parce que man nag maa ngi njëkk a miite APR mosuma jaar ci beneen parti bu dul parti président Macky Sall li ma dugal ci politique nag mooy wax sa xalaat boobu nga xamante ni ci la ma ñëpp gën a xamee sax sama politique bi Euh, ci laa deme di ci dugg di ci dugg dem ba ci yàgg nag xam nga rajo moom comme dafay communication toujours dafay gën di di yóbbu nit foo xamante ni yéegoo fa ba dem ba nit ñi di ma woo fu nekk nag ni ma yow faaw nga taxawal mouvement pour ñu mën a ànd ak yow ngir ñu mën a jàppale président parce que ni nga koy liggéeyal daal rëy na ci laa ko lancé le 24 juillet euh, ci théâtre de verdure tuddee ko mouvement Macky moo ñu doy di ci liggéey boobu ba nga daal ñu nekk ci ba ni élection yi euh, yaakaar naa daal lu mat ñeenti at ci ginnaaw wala yëpp ñu ngi ci waar bi di ci bayal président Macky Sall parce mhm. bi daal ci leen tàmbalee soo ko dugg ci biir politique. Mhm. Euh, mouvement bi wax naa la ko léegi ci biir wax bi ñu nekkee ci wax sa xalaat bi ci di ci intervenir mhm. wax dafa bari da yóbbu foo xamante ni fa bis bu nekk da jot ay yu bëree bëri yoo xamante ñoom dañuy jàpp ne yow sax responsable bu mag a mag nga parce que bu ñu xëy dégg ngay wax ci rajo rek surtout rajo boo xamante nekk France di la woo ñi nekk Espagne ñu demee nag nga fexe noo jàppalee Macky Sall ci laa nag ni xalaatee ni kon faaw ma jéem a taxawal benn mouvement tuddee ko Macky moo ñu doy loolu moo ma dugal ci ci tax ma taxawal mouvement. en tant que responsable mën naa xam ba mooy li gën a jaaxal nit ñi parce que non xam nga man toujours damay sauvegarder samay valeur parce que dama gis nag yenn sama yenn yi bu ñu ci biir leader bu ëllëgee ñu nekk ca te man loolu laa mënul moo tax toujours ma toog rek di xaar. Euh, parce que wax deug yalla man leader bu ma xass andal xalat na ne lañu takale ci yow lay joge ma du joge ci man motax toujours rek man damay tok di incarner sama leader ci bop parce que nit ku nek na yama def sa bop leader ah. wa nit ku nek yama def sa bop leader wa motax toujours rek man dal wax deug yalla tamo guma dal ngir wëru ci ben leader tam ma fexe daal ngir fexé ba man man ma incarner sama leader ci bop wane ni dal responsable la ko ñep li leader yi def li ma ci man ma di ko def parce que tamit leader du dara du gëm sa bop toujours di nek ci problème yi programme yi lu ñu am euh, programme fu programme am bu ñu la ko waxee nga dem sa ñi nga xamante ñoo nga dëkkal lépp lu ñu mën nga jàppale leen di jàppale association yi ndaw ñi ak jigéen ñi loolu rek jàpp naa ni mooy leader ah ni ko leneen waaw bu fekkee nag euh, comme nii gars yi def na man moom laa mënut mënuma Adama Dieng ànd ak kii boo liggéey ma ànd ak kii ci cappa bi daal man mënuma moo tax daal ma ber sama langue bopp dëkkuma nag am leader bis bu ma kenn sollicité pour ñu war a ànd bu ñu waxtaanee ba juboo mën nañ ànd mais nag wax dëgg ma xësee ànd ba joxe sama kàddu moom dootuma arrière ma instant bi nag euh, kenn soo suwaaguma kenn daquma kenn nag daquma kenn nag ku nekk biir affaire nag laa wax man moom du Macky Sall rek laay liggéey liggéeyalu ma keneen waaw daquma kenn ku nekk affaire képp koo xamante ne daal pare na pour ànd ak Adama Dieng pour ñu liggéey bu ñu waxtaanee bu ñu juboo mën nañu engagé wu ñu ànd ak liggéey parce que lépp solo mooy ba ànd ak nit ba ànd ak nga mënal ko dara mais dafay bari ay nit ñoo xam ne ànd ak nit amal na la njëriñ kon euh, élection présidentielle yi passé kon yaa demaloon sa bopp di campagnal sa bopp. waaw élection présidentielle Touba dañ ko dagg ay zone. waaw élection présidentielle Touba dañ ko dagg ay zone man maa ngi woon zone onze bu Touba Kër Ñang foofu laa nekkoon ak sama mouvement tamit ñi nga xamante ne mën naa ànd ak ñoom ci campagne bi ma ànd ak ñoom di liggéey mais élection yi moom dañ ko séparé ay zone man zone onze laa féetewoon. zone boobu noonu kañ mu fa ah, xam nga nag yow ndey da nga ñuy da ñuy ñaawal. tuba mom ben son bu la man ni gañe amul lan mo waral euh, en tant que jeune ngeen nek fi nga xamanteni ci modi moo di Touba Mbacké ki nga xamni moy sen leader di moy president Macky Sall euh, defet bi nga xamanteni ni si la am fi Touba naka ngeen ko dundee yéen waaw jërëjëf euh, question bi amna solo trop parce que question la bo xamanteni warna yitel mbollem kuy politique surtout ma di ndaw parce que tamit président Macky Sall yaa gën bëgg a gañe Touba te bi yakarna mo élection ñentelu élection bu ñak bi Touba loolu nag wax dëgg yàlla su ma la waxee dëgg rek moom mi nga xamante ne mooy Ndeye Mbédé ji am na ci part de responsabilité bu rëy Macky Sall ñi wooye seen bopp ay leader am nañ ci part de responsabilité mm-hmm. waaw responsabilité Macky Sall na bi mu ci doon mooy dafa war a xool ñi nga xamante ne bu leen jàppalee ñu gañe mu di leen jàppale loolu moom mooy responsabilité am ñi nga xamante ne ay leader leen président wóolu leen di jël ay moyens di ko te seen loxo nañuy fexe ba ñoom itam moyens yi leen président di jox di ko àggale ci population bi pour leen a boteel moo ma jaaxal parce que ñëpp dañ di Macky dafay tuur xaalis bu budul budul jeex tàkk ci biir campagne yi te amu fi benn ndam. non pas sax xam nga. sax xam nga campagne moom ni moom di financé noonu la Sonko di financé noonu la keneen di financé mais du sax dafa jël xaalis di ko tuur non tuuru ko mais nag ni parti yëpp def jox na ko yëkkati na ay mooy teg ko ci ay loxoy nit mais na ñam ci jël mooy teg ko seen loxo ñoom ñoo ko tasaarewut ñoom ñoo ko yemale seen bopp. yow moyens yooyu euh, kon lo doon campagne sa moyen bop campagne euh, ay moy joge ci état bi ren ci campagne lima lima campagne kës néew euh, samay wala sama partenaire yo xamanteni dañ ma bëgg di ma jappal may benn moy bo xamanteni ne état bi jël nako ko ko biir Touba Adama jëng jottul ci bop xaliss waaw mais tank en tant que jeune nek nek nek responsable à perfini lan mo waral manam sen dëngoo gi ba tax mun leena nek ben est ce que du loolu mo waral président Macky Sall perdre fi Touba wala non xam nga politique nag moog làmb ñooyam coow lay ubbee coow lay tëj benn parti bu ñëpp juboo amut muy parti Pastef ak parti Madické Niang non xam nga affaire li muy parti poir la te parti pouvoir nag euh, njariñ dafaa nekk te njariñ fu mu nekk fa faw coow bari fa mhm. boo gisee coow li bari yépp mooy njariñ li fi nekk xëy na moom la gaa yi xëccoo mais li ñu war a ëpp solo mooy dañu war a sauvegarder fexe ba Macky Sall mën a gañe parce que nit ki nag bala ngaa siggi ci politique dëgg-dëgg da war a fexe bay gañe fa nga nekk waaye gañe woo pare di may doo may nit ñi jàmm guddeeg bëccëg ngay xuloo loolu moom bu ko président dégg sax du nawloo. jiital kenn fi nga xamante ne si moo di Touba est-ce que affaire bu gën a boole ba tax Macky Sall di gën a am pouvoir fii. non jiit moom beneen affaire bu dee am président moom mooy jiital. Mhm. jiit waaye fi ne parti bi kenn ku la man ni maa ko jiitee ci Touba wala ci Mbàkke moom amul moom parti bi moom amul njiit parce euh, a jiital bi moom kenn ku la man ni maa jiite parti bi moom amul Sall en tant que yéen di jeune nekk ak nekkal ko fi nga xamante si moo ne Touba loolu seen defat la yéen ndax mun leen cee def benn bay seen waar tuuti nag affaire yi xaw a changé wala. non dañuy accepté ne suñu defal la parce que ñun ñoo opté. non dañuy accepté ne suñu defal la parce président Macky kon su amee defet dañuy jàpp ni ñun defet bi suñu defeet la waaye moom am na ci responsabilité parce que Adama Dieng mooy yéen jox son 11 bu kër man bu ma ko jotoon bu ma ko jotoon dinaa ko campagne te maay président son Super Bowl 11. waaw mënu ma aar la nii lañ ko séddalee nañ séddale moyens yi xëy na baaxut te ñan ko jox campagne ñu dañoo lekk xaalis ba campagne ñu waaw léegi nag président dafa am am na ci responsabilité parce que renseignement généraux yi ñu ngi fi xam nañ ni Adama Dieng mën na dara fa mu nekk xam nañ ni Mame Goor Aye wala diw ak diw man kenn ku ne fa nga nekk mën nga fa dara waaye bu ñu jëlee moyens yi jox ko bu ñu toog ci saar yi ah moyens yi kay ñun ko jox xam nga leen man duma fi nekk naa la kii ak kii lañ jox moyens yi waaye daal Macky Sall bu borom saal yi du gagné na yi ndaw ñi nga xamante ne ñooy dem ci céet dem ci sarax di dem ci ndey di kii lu xew ci commune ndaw ñi ñoo fay dem kon bu xewee ndaw ñi dafay ñàkk na jël mooy investir ko ci ndaw ñi ndaw ñi gàññe dëkk bi fi nañ ko naan Touba dañ ko bañ Touba kenn bañu ko fi def na fi lu am solo mm-hmm. mais li fi Macky def ci ay réalisation gëm naa ni bu dee réalisation rek mooy fal nit mm-hmm. Macky Sall def Touba mën na koo fal kon mm-hmm. manque communication diggante ma population bi rek moo waral loolu tey boo doon sa message nga xamante si bu fekkee dañ laa wóolu ba kenn nit rek bu la wóoloo ba ne yow yaa ma doy war ngaa jël ses responsabilités bala tax bala taxal mu doy la dara du ko ci gis lu dara dara du gis dara lu ko naqari waaye wax dëgg yàlla ku la wax dëgg waxul dëgg mooy ni ñu campagne fii ci Touba mooy yéen fi dugal yëpp amul yenn mooy yoo xamante ne jaar na ci yoon lépp amul lenn lu ci tege ci yoon kon jàpp na loolu ña ko defal na am nañ ci responsabilité parce que sàccum dënn na waaye foo ko tëggee moo jafe parce que président dootu leen ko jox parce que xam moom leer na moom dañuy yàqule mais dootu ñu ngay du nii est a kaas <laughs> xam nga xam nga lu mag def dee bu dekkee bàyyi président moo la gën a xam li xew Touba. Mhm. te xam na ko bu baax a baax te dina ko corriger te maa la wax ne la bu yeneen élection dikkee di nga gisaat beneen stratégie bu bees président dina xam ndaw ñi nga xamante ni ñoo ko sonal mu jàppale leen mhm. loolu moom maa la ko wax moom fii ci seen site bi laa la ko waxee Touba moom dina changé bu baax a baax waaw te gëm naa ni Macky Sall dina gagné Touba lu musula am dina gagné Touba parce que population bi nag toujours dañuy gën di yeew toujours nit ñi mënu ko ne di leen nax non dañ leen doon nax man gis naa ñoo xamante bi ñu wateel Idriss Seck ci suba dañu ñun xamuñu lan moo tax ñu wateel ko bu ñu yëgan Macky Sall la ñuy wateel parce que ah man dañ leen a nax te population mënu ñoo dëkk ci nelaw nag nelaw nag lu mu yàgg-yàgg bu borom fàttewul lu mu yàgg yàgg dina yeew. Ah, ah baax na merci beaucoup ci boobu message xam naa kon ñoom ñi nga xamante ñooy leader yi nga xamante si ñoom lañ tegoon moyen ci seeni i loxo dañ jël ko toog ci ferankulaay fa seen i cee noos dinañ ci jot. <laughs> les Adama ah, yaa ngi ñëw. kon baax na. ginnaaw bu loolu jàllee ah, la. ah yéen exclusivité laa ko may parce que yéen laa ndogoon candidat la conseil départemental. candidat la incha allah. ñu ci yàlla yóbbu boog jàmm. parti bi nag moom mooy àtte. Mhm. parti bi dina joxe liste liste bi muy joxe. Mhm. buñ ci d'accord ñun dañuy taxawal suñu liste bopp. waaw loolu moom maa la ko wax moom. incha allah buñ ci yàlla yóbbu jàmm. waaw. ñu gis ni que bu yàggul dara rek. Euh, dañoo supprimer li nga xamante ne si mooy poste premier ministre bi yow loo ci loo ci xalaat loolu. waaw am na solo. parce que nag euh, poste premier ministre moom. président Macky Sall bu xoolee bañ daf ko war a supprimer ngir ñaar benn bi ngir lenteur administrative maanaam yeex-yeex yi doon am ci diggante primature ak présidence mu mën a dakk bu ko defee ministère yi dañuy mën a am contact direct digganteem ak euh, président bu ko defee liggéey bi gën a gaaw benn beneen bi ci des mooy dañ ci rationaliser xaalis parce que nee na diiru quinquennat sept kii bi cinq quinquennat bi dinañ ci rationaliser le prix de soixante quinze milliards ma ne loolu vraiment lu baax la bu ñu ko dugalee PUDC ñu yokkal dëkki àll yi ndox courant bu ñu ko yóbboo ci DER bi ñu yokkal ndaw ñi ak jigéen ñi financement bu ñu ko yóbboo Promoville ñu defar Touba ay yeneen ak feneen fu ñu ko dugal daal boo mën fa dara vraiment. kon baax na incha allah na ko jafee comme ni mu ko war a utiliser tamit rek ba askan wi ñëpp jot ci li nga xamante ni si lañ ah, nga xamante ni si ah, Aminata Tall ki nga xamante ni si mooy Mimi Touré loo ciy xalaat. Sall da koy yéex def. Macky Sall da koy yéex def kay. vraiment aminé tal mom wax dëgg yàlla ñu région de bi mu nekk de ñu ko ci le plan politique ñun ñi fi nekk ay ndaw di jàppale Macky Sall ñu aminé tal Mimi mi la lami nekk nekk Dakar Dakar limi impliqué au niveau département wala au niveau commune de Touba sax nga woo ko téléphone jot ko wala yeen say nga yoni ko message mu toll la sax fekk ci fekk ci aminé tal kon japp na ni li Macky Sall def moom da koy yéex a def ka wajur bel dañu gisatul seen bop ci li nga xamante si gouvernement bi lo ci xalaat. ñom ah, ñoom ah, ministère bu bes dam job miñ fal ministère fofu Diourbel la Diourbel la dëkk yaakaar naa ministre kay xëy na yaakaar naa moo ëpp doole institution boobu Aminata Tall jiite woon parce que defalul leen waa Njaareem dara nag wax dëgg yàlla ah góob muy defal na leen dara parce que man mosuma dégg lenn lu ñu Aminata Tall moo ko def Njaareem bien sûr ànd naa ci président da ko yeex def mm. ànd naa ci bu baax a baax effectivement ah, looy ñaax ñi nga xamante ni si jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi di ndaw comme yow di liggéey xanaa ñu gën a gëm seen bopp rek kenn ku ne parti boo mën a féete muy pouvoir muy opposition nañu gën a gëm seen bopp te xam ne ndaw mooy lu ne ëllëg kenn ku ne mën na cee doon lu ne waaye bu ñu yàqee seen i ci ay montage ci ay audio ak ay vidéo man Adama Dieng di su suma ci dégg kenn du gis benn vidéo buy ñaaw de ñu ne Adama Dieng ko wax benn audio bu ñaaw buy daw ñu ne Adama Dieng ko wax doo ko dégg parce que politique nag da koo jërut parce que ñeneen xeexal bu ñuy waxtaan doo ko yëg Barthélémy Dias bu nee bu dee mën a demee ba photo wu ak Ablaye Wade xam nga foofu politique eh, musiba la Bamba Fall mi lu max bëkk dem ne mu ñu dee delluwaat Ousmane Tanor Dieng te tojante na fee boobu loolu am na fi léegi ñun ñi nga xam ne ñooy daje bàqee di daje ci ngénte yi fu ne ñu dafa daje léegi buñ ñaawoo boo liggéey fan lañ fan lañ jëm élection yi Macky Sall ku ko waxat ni ko dina ànd ak ku mel ne ñoom Moussa Aminata kii ku dëkk Podor Aïssata Tall saal ku ko waxan doo ko gëm kon jàpp naa toujours nañu rafetal man day wax dëgg yàlla sant naa yàlla baax ndax xam naa ni comportement bi ma yor nii ëllëg mën na maa dem ci beneen parti bu ma neex te duma fa fa seenew parce que nag wax dëgg yàlla man damaa jàpp loolu mooy politique daal dañoo waroo ay gis-gis rek mais ñun ñëpp kenn ku ne benn initiative nga am muy defar dëkk bi man daal loolu laa gis moo tax mën xam ba xam ci politique rek ngay war euh, yaa ngi beneen métier bu sama Mm-hmm. macha allah loolu am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax looy tàggu askan bi lay seetaan. tey moo ñu accueillir fii muy Mbène Ndiémé Bèye vraiment nekk koo xamante ni ku baax la euh, moom la ñuy wax yaay parti bi xam naa war ngeen ko seet si moom itam benn bis parce que nag war yaay ma ku jàmbaar la ci parti bi la. di sant nag ñi nga xamante ne dama invité woon ñoom ñëpp ñu ñëw parce que nag wax dëgg yàlla ki la yëg nga woo ko rek mu ñëw yaakaar naa ni munoo ko fay kon ñoom ñëpp maa ngi leen di sant euh, di sant nag mbooleem ñi nga xamante ne dañuy topp site internet bi euh, di leen déglu te di leen ñaanal tamit te di leen ñaax ndax wax dëgg yàlla métier presse dafa am solo ndax dañuy wax ni métier moo sàq mi ñooyam bu mokkul rek mën naa sonal borom kon toujours ñu ngi leen di ñaax leen félicité tey wax ni presse dafa am responsabilité bu rëy rëy ci defar réew waaye am responsabilité bu rëy rëy ci yàq réew kon jàpp naa ni toujours loolu yéen a ngi koy soraale muy éthique ak déontologie bi nga xamante ne moom la bàkkee journaliste yi kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax te leen ñaax di ñaan yàlla na ñu teewee ko ay at yu bëree bari di leen sant bu baax di leen gërëm ci invitation bi di ñaan yàlla koor gi yàlla bu mu nekk suñu koor gu mujj jaajëf euh, Adama Diagne ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax parce que gis nañ tey teer bi ñu teeru teral nga ñu ci ndogu yi macha allah gis nañ lu rafet li nga xamante si def nga ko tey boole pouvoir opposant bàyyi woo kenn lépp ngir wane ni Sénégal lépp benn la macha allah yal na ci yàlla yokk ba nga yëkkoo ñu ngi lay remercier bu baax na ci émission bi dalal gi ak teeru geeg yaatu gi yombalal nga ñu ko torop amuñu ci benn jafe-jafe ñu ngi lay xamal ne waa Mouride Info ñu ngi lay jaajëfal lu baree baree bëri merci beaucoup mbokk yi a ngi seen émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou suñu invité tey nag kenn dootu ko naatable muy Adama Dieng responsable bu mag fii ci APR ah, noonu lañ leen ànd ak yéen saa su nekk ba weeru koor gi jeex ñu ngi leen di jafal lu bare bari suba incha allah ci beneen invité jaa ngeen jëf